waaw tey nag topic biñ indi mooy ci affaire yi nit ak nit ci biir weeru koor buñ tobee ne ñu ni neen la dara du ñaaw ñu dugga ci biir weeru koor bi bismillahi rahmaan rahim di ñaan agale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin di ñaan sun mbokki julli di ñuy seetaan tey sun topic bi fi gën a laal mooy ci marché bi yérmandi so yërëmee sa moromi jullit rek yàlla yërëm la soo amee lu tuuti nga éenee ko sa moromi jullit yàlla yërëm la lu tuuti loolu nga am nga éenee ci sa moromi jullit bu ëllëgee yàlla dina ko yokka waaye bu amee lu tuuti nga añaanee sa boromi sa di ko soxoree di nga yàgga utte doo am de mm. fa nga toog ker gi saa yu ñëwee dina la fekk foofu romba dem suñu waatee ëllëg romba dem yow ci noonu rek nga nekk di nga daw ba sona te doo gis li nga ut lu ko waral yërmande baa fa nekkut dañ jël yërmande rey ko suul ko jaala taalal di dem te yërmande waruñ koo rey yërmande suñ ko indee suñ biir rek dara du jafe comme marché bi gis naa ci jaaykati ganaar yi ñuy jaay leet lekk si fi may njëkkee sax yokka nañ ko parce que fifty la woon léegi ñu ne sixty mhm. defoon naa bi ñu fi oo rek léegi container mënu fee ñëw ba ñu war a yokka mhm. loolu tamit ci nekkul yërmande ñaareel ba ñu koy jënd di ko jaayaat dañ koy def ci kuula yi teg ci kaw bem di frost waaw ñu indoo jaay bu jaru dañ ko jël dugalaat ko ci frisa bi mu woowaat su ëllëgee ñu jaay ko jaay ko te yaakaar naa ne loolu nekkul loo xam ne wéri doomu dina koy yokk euh, waaw baaxoon baaxoon na sax ñu am fii ñi nga xam ne ñu ngi ci wàllu wéru yaram gi mm-hmm. dafa am yoo xam ne soo ko frisé ba mu wow nga di defrost mm-hmm. ko doo ko war a frisaat ndax soo ko saate rek mm-hmm. mun naa indi loraange ci ki nga xam ne moo koo lekk even su nekkee naa sax yow loo denca la ci sa frige comme li demee ni ki jën comme li mm. demee ni ki yàppa comme li mm. demee ni ki sipa sipa comme li demee ni ki euh, euh, yoxos yooyu soo leen xaree di fris mm-hmm. maanaam mu wow nga seeyal ko ba pare mm-hmm. da nga war a toggale ko mm-hmm. boo ko delloowaatee ci frige bi pour mu frisade mun naa am poisoning te yooyu mooy indil loraange ci doomu aadama yi eh, jaaykat yi xëy na ci bari dañoo gis ne defrost na jeexut so nga dellowaat ko ci frige bi mhm. indiwaat beneen loraange mhm. Mhm. kon fanaa ñiy jënd war nañoo bàyyi xel ci yu mel noonu bu baax weeru koor weeri yërmande la ñu ne weeru koor la waaye weeri yërmande la dañu war di yërmante li nga gis ñu dem marché ba ñëw suñ laajte li ñu ne dafa seer ndogu sax duñ ko dee mën a togga hmm. dañu ne leen dañu war di yërmante hmm. sa dëkkandoor amut soo amee toggal yakkal ko soo amee lu la doy sa dépasse xaaj sa meel sa dëkkandoor ne ko dugal soo ko seetloo weeru koor dafa ànd a yërmande gu bare bare bare bare du ne pour sa bopp rek loo am xajal si sa dëkkandoor nga bokk kook moom lu mu tuuti su ngoonee ku nekk mos moo gën a rafet mm-hmm. ah ñu ne war nañu gëstu suñ boppam bu baax a baax a baax a baax mm-hmm. mbor-mbor bi mbor-mbor sax léegi dañ ko teg price bi <laughs> ñetti dërëm lañ koy jaay mbor-mbor dalasi la woon. waaw def na ah waaye loolu ko dee order jën yi duñ ko order yu sew yi duñ ko order yow fii la am ne waaw juróomi dalasi la ñu woon dañu andi yërmante. Mhm. tey di nga am xonte dalasi dem marché duggi mhm. sa dugga du doy yaa ngi mel njaboot gu bari nekkoon su nekkoon ba tey ñëpp noppale ko waaye fi mu ne affaire bi dafa ëpp loxo di o pana loxo torop torop torop sax poti sukkur bi waxi noppa koo ne wàññi ko mu ne la duma ko wàññi nii laa koy jaayee loo si mun ñu gërëm nag suñ njaboot gi itam bu baax a baax ak suñ goro yi ñu gërëm suñ njaboot gi baax a baax ku si feebar wala ku si am tiis yal na yàlla génne sa tiis njaboot yëpp ñu si tukki yal na yàlla oyofal seen yoon. Bayda. gërëm gërëm dama gis jiyaat yaay si wax yàlla ñu ngi sonn si diina ji trop euh, waxtu bu nekk ñu ngi dimbale nit ñi lépp loo waroon a dégg rek yaa ko dégg euh, yaakaar naa bu passé lu itam maa ngi gërëm soxna yi parce que wax dëgg gis ngeen gis ngeen marché bi ni méttee mm-hmm. coono bi ñu daj di dem si marché bi di jànkonteeg coono bi suñ ko boole na ñëw ñëw si si si euh, waañ wi buñ boo wàccee yow gis na euh, euh, euh, ku mel ni Serigne Faye wax dëgg yàlla ñoom yaa ngi ko wër mu kontaan fekk nag ñoom lañ dajoon. Mm-hmm. Mm-hmm. soxna yi ñu jërëjëf ñoo gërëm dëgg la. ñooy gërëm di gërëm soxna yëpp nag. Mm-hmm. waaye nag di si jiital ñaari may mun a yi. Ah, ah wala may mun a yëpp nag. parce que may mun <laughs> di sant di gërëm. alxuraan def ne wa siinoo bil qustaasil mustaqim bu ngeen di peese peese leen ci balaas wala bëskil bu jub bëskil bu jubadi nag am na. am na ñoo xam ne bëskili mën nañ cee def dara loo xam ne yow doo ko gis doo ko yëg bu peeselee boppam mu bari bu la peeselee mu néew lii borom bëskili yaa ngi koy def mhm. borom peese yaa ngi mhm. te yontu yàlla soy ba ba ñëwee bi ko yàlla yónnee lam njëkk njëkk njëkk wax ci programme am mooy jubal leen peese yi mhm. na ngay def lu baax te saa yoo peesee lu bon peese bu bon mbon nga jubal ci ki nga ko peeseel li ngay jaay dara du ca barke man gis naa ci benn téere gaal goo xam ne mu nga fees del ak marchandise ak i wayaasekat am ci wayaasekat boo xam ne koo ko jaaykati soow la dafa demoon jaayi soow bay wëññeeku mu ngi am ak gambam gamb yaa ngi defoon soow ba jeex na mu ngi fas xaalis bi ndeke ki bi biir gaal gi am na ci julo boo xam ne moom ay ay goong lay jaay golo am ci golo gu rëcc nag bi mu rëccee doxante ci biir gaal gi di dox ba gis mbuus mi nga xam ne jaaykati soow yi moo ko amoon mu këf ko de éega moom ca kaw maaw ba ca kaw maaw ba de taxaw fa teg ci mbuus bu hmm? jëlee benn dërëm sànni ko ci ndox mi benn dërëm sànni ko ci ndaw si doon jaay soow la ilaha illallah oh. lu yéemu la bu oh. jëlee benn dërëm sànni ko ci géej gi jël beneen sànni ko ci ko doon jaay soow lu mu jublu ci lool soow mi dañ ci def ndox soow mi dañ ci def ndox Oh. ndox moomu nañu ci def nag mu ne dërëm bii ndox mee ko moom am ma delloo ko. Mm. allah <laughs> dërëm bii nga moom am ma jox la boobu mooy cërëm <laughs> boobu yéeme na. jërëjëf mm. jërëjëf oustaz Mbaye Diop. li eh, ñoo tëjee nag mooy ni ko imaam Diop waxee ñu ngi ko gërëm ndax moom itam eh, ñëwam ci. Eh, daara ji tey yokk na mm, daara ji bu baax a baax mm-hmm. ci wàlli xam-xam ak xelaat yu rafet mm-hmm. kon ñu ngi gërëm ñëpp mm-hmm. te itam di dénku suñu bokk yi eh, nga xam ne ñooy jaay ne nañu bàyyi seen xel <laughs> ndax eh, mbur mu em ni yàlla hmm. te sooy dem ci moom dañ laa futti ba nga set takka ba nga dëgër <laughs> ah. pour moomu booy dem ci moom mm-hmm. nga fexe dem demin bu rafet bu ndax am na yenn demin yoo xam ne boo ko demee ci moom mm-hmm. ah, yàlla mun bu bu àddaje bu dak yërmandeem mm-hmm. eh, mun naa indi coono te doomu aadama soo gisee ni moo génnee àddina li nga bari le lum li nga dajale lu bari bari bari bari bés boo génnee àddina bu nekkee lopitaan la doo jaar si ci kër gi sax te ñoo ne yóbbu leen ko ca jàkka ji bu dee ci biir kër gi bu néew gi dem bu bu bu bu roog yi dog rek ñu ne yóbbu leen ci wanak wi mm-hmm. bu ja ca bunti gannaaw bi ngaa jaar saal bi kay bokkaatuloo lal bi bokkaatuloo buñ laa génnee sax ca gannaaw lañ laa jaarale su ñu amee yoon wuñ mun a daaneel sax dañoo daaneel ay korget ñu jàllale niiw bi foofu yóbbu buñ demee sax ba ca jàkka ja nde ndeysaan ci naaj bi lañ laa bàyyi ñu ñi toog ci biir jàkka ji di toppatoo sa mbir bu dara desul lu dul julli imaam bi buy jiite nit ñi nit ñi dañ koo féetee kanam waaye because buggu ñoo jee responsibility imaam bi du dox sa diggante kenn yow ca kanami imaam ngaa nekk bu jiitee la kon ñu war a xam ne li ñoo mujjee yanay jaru ko di jaay-jaay yoo xam ne ëllëg dangaa ñëw am ak sa amante sa borom wala amante sa morom yi amante sa yi am na leneen lu ko génn kon ñu ñaan rek yàlla defal ñu jàmm defal ko réew mi alaaj sëriñ bëgg naa nga yeggale mbir mi xam nga xam nga bu imaam bi jiitee mhm. bu ñu jiitee ba noppi la des nag mooy li gën a garaaw mhm. ndax diggante ba nga génnee àdduna ba léegi mu ngi mel yaa ngi ak nit ñi mhm. waaye nit ñi dafa am fu ñu yem ak yow aj sëriñ foofu moom dana am solo nga yegg fa loolu la li xew mooy buñ bu dara desul nag lu dut nañ dem yóbbu ko di nga gis ne eh, ñu bari sax duñ àgg léegi nag ñu dem ba dara desul ci bunt armeel yi allahu akbar ñi la gën a jege sax kuñ ci ne kaay dugg ci pax mi ñu bari bañ am nañ ci ñu bari ñoo xam ne sax duñ fa jege léegi xëj na ay jàmbur wala ñoo xam ne sës nañ ci yow gëm yàlla ñoo laa wàccee mhm. te nag ñi sës ci yow ñoo laa mujjee suulat yi te euh, doomu aadama yi li ci li ci gën a métti mooy li ñoo gën a dëgëral ci jamono yooyu mooy nokkos leen ko suul leen mu dëgër sotti leen yéen fu ñu gis ne xaw naa yu xam sax ñu bës rokkos ko rokkos ba mu dëgër liñ teg ku daan sàngoo sumay dénki xaalis bu bari ay xarang-xarang la jël rek teg teg ci ko armeel bi xëj na suñ bañee fàtte sa mbir ñu dog salaam